بزنبوري بي بزنبوري بي أقيول يشي يشي يشي جوجي أقيول يشي جوجي نغمرك كوماي نغمرك كوماي كون من كون dafa mel ni kon xamal nanu dafa mel ni kon xamal nanu li ci am solo li ci am solo suñ suñ diggante ak suñu borom suñ diggante ak suñu borom kon war na noo xalaataat bu baax a baax a baax. wala gëstuwaat bu baax a baax ngëm. wala gëstuwaat bu baax a baax ngëm. war caa def suñu yitte jëpp. war caa def suñu yitte jëpp. lépp lu naqari ci suñu bopp. lépp lu naqari ci suñu bopp. wala mu naqari suñu diggante ak suñu borom. wala mu naqari suñu diggante ak suñu borom. ngëm gaa des. ngëm gaa des rek. ngëm bu amee. ngëm bu amee. topp rek cee tegu. topp rek cee tege. ak wattandiku tere. ak tere. bañ li yàlla suñu borom bañ ci jaam ci ci jaamam. bañ li yàlla bañ ci ay jaamam. li yàlla bañ li yàlla bañ ci aw jaamam. bañ li yàlla bañ ci aw jaamam aw jaamam. bëgg ci aw jaamam ci aw jaamam kon mu ne kon lu xewati lu xewati ngëm gee des rek ngëm gee des rek lislaam lislaam yàgg na lool yàgg na lool yàgg na lool yàgg na lool yàgg na yàgg na lool yàgg na lool gannaaw bu sang bu baax ba bu mu wonee ga bu mu liggéey bu woon woon gannaaw jaam bu baax ba bu mu liggéey bu woon gannaaw jaam yi bu gàtt ci bu gàtt lépp soppiku lépp soppiku te dara waralu ko dara waralu ko ngëm gu de sekk la ngëm kon mu kon ku ne ci nun kenn na dellu ci boppam na dellu ci boppam seet diggante moo ngëmam seet diggante moo ngëmam lu lu mat a def yitte la lu mat a def yitte la ndax fu fu jamono ma sa toll fu jamono ma sa toll yàqu yooyu yàqu yàqu yooyu yëpp yàqu-yàqu yépp mi ngi jóge rek ci ñàkk gëm mi ngi mi ngi jóge rek ci ñàkk gëm kon balaa dara sotti kon balaa dara sotti dañu gëm dañu gëm dëgg dëggi ngëm dëgg dëggi ngëm bu hàddis boo waxee ne boo defee waxee ne nit am benn benn ku gëm amul kenn ku gëm kuy sàcc kuy sàcc te wax su woowee mu nekk mu am mu am ngëm ci waxtu woowu nekk boobu amoon ngëm ak kuy def beneen safaan ak ak kuy def beneen safaan dafay mel ne ngëm ngaa wérut boobu de mel ne mel ne ngëm ngaa kon nanu dellu ci suñu bopp kon nanu dellu ci suñu bopp gën a góorgóorlu bu baax a baax gën a góorgóorlu baax a baax te nun tawfeex jure ji am ndax nun tawfeex ju rëy ji am. muy am gënu am sëriñ bi. am gënu am sëriñ bi. lépp ngi ci biir. lépp ngi ci biir. dafa mel ne ngëm. dafa mel ne ngëm. boo ko boo dee see sëriñ bi. boo seetee sëriñ bi. moom daf koo indaale. moom da koo indaale. ci tolluwaayam yëpp. ci tolluwaay mi tolluwaay ko ba mat ba mu mat sëkk. jëfe ko ba mu mu def ci moom. gannaaw coobare sa borom ji mu def ci moom. jëfi ngëmam rek rek. moom rek la. moom rek la wér. kon nan góorgóorlu baax. baax a baax. lu nu dal. lu dal. ngëm gi wérul gëm nga wérul rekk ndax bu ngëm amee ndax bu ngëm amee jëf rekk ci topp jëf rekk ci topp yoo xam ne yoo xam ne yittee ci jiitu yittee ci jiitu comme kon gëm moom jëfe rekk la kon gëm moom jëfe rekk la ni nga xam ne xam-xam jëfe la ni nga xam ne xam-xam jëfe la nga ma jiitu. nga ma jiitu. kon nan góorgóorlu bu baax. kon nan góorgóorlu bu baax a baax. wax ji moom jarul guddal. jox ji nag jarul guddal. bu nu xamee ne. bu nu xamee ne. ba ba lislaam jógee ba léegi. ba lislaam jógee ba léegi. fi la yonent fi woon alquran. fi la bàyyi alquran. fi la bàyyi woon fi la bàyyi woon borom xam-xam yi jëfe ci yi jëfe seen xam-xam borom xam-xam yi jëfe ci yeneen yi jëfe seen xam-xam def nañ lépp def nañ lépp te taxul mbooloo mi soppiku te taxul mbooloo mi soppiku te ñëpp itam kenn ku ne jàpp nga sa bopp ne ab jullit nga te itam ñëpp kenn ku ne jàpp nga sa bopp ab jullit nga jullit yi rek lañuy wax jullit yi lañuy wax te jullit bala moo wér te jullit bala moo wér ngëm dafa am ngëm dafa am bu nu ci sëriñ bi. bu nu xoolee ci sëriñ bi. gis ci lépp. gis ci lépp. gis ci njëriñeel ngëm. gis ci gis ci nun mën nañoo bañ a am genn jaaxle. nun mën nañoo bañ genn jaaxle. ndax sëriñ bi. ndax sëriñ bi. jëf na lépp. jëf na lépp. jaar na fi ba wéy. jaar na fa ba wéy. nekkul musta nekk ci dara lu ci boroomam musta nekk ci dara lu boroomam rek loolu moom loolu moom kon dëggal dëgg dëggal dëggal na eh, gën naa di jariñ gën naa dëggal li ngëm di jariñ kon li ci des lépp kon li ci des lépp lu nu ci mën a naqari lu nu ci mën a naqari nga des rek ngëm amee nag. bu ngëm amee nag. yitte daldi am. yitte daal di am. Eh, càggante daldi di dàqu. càggante càggante daal di dàqu. kon. kon. ginnaaw ngëm. ginnaaw ngëm. baatu diine rek moo ci topp. baatu diine rek moo ci topp. kon nu góorgóorlu bu baax a baax ndax diine ji moo nu woon suñu digg ni lim soon dig lim digal ak lim tere ak lim bëgg ak lim bëgg ak lim bañ ndax diine ji moo nu moo nu xamal lim bëgg ak lim lim bañ li suñu suñu borom digle li suñu borom digle ak li mu tere ak li mu tere diine nu koo xamal diine nu xamal diine nu koo xamal xamal ni li suñu borom bëgg xamal ni suñu borom bëgg ak li mu bañ ak li mu bañ kon diine kon diine. mooy dëgg. mooy dëgg. ginnaaw mënuñoo ñàkk eh, eh, ni ko suñu borom tënkee. kon mënuñoo ñàkk ni ko suñu borom tënkee. maanaam ni ko suñu borom tënkee. ni ko suñu borom tënkee. wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun. wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun. loolu lépp a ci biir. loolu lépp a ngi ci biir. jaamu rek fi rek fi sës nag. def kem kàttan ci ni ñu ko digale def kem def kem kàttan ci ni ci ni ñu ko digale daw suñu xilu bakkan ci ni ñu ko daw dem dem su daw suñu kem kàttan ci ni mu ñu ko teree. góorgóorlu bu baax di suñu nit yëpp ci ci bëgg ci bëgg lu baax. góorgóorlu bu baax suñu nit ci bëgg ci ngir bëgg lu baax. ak di ko jëfe ak di ko jëfe góorgóorlu bu baax. góorgóorlu baax. ci daw suñu xilu bakkan. di daw suñu xilu bakkan. li mu bañ. ci li mu bañ. suñu kem kàttan. suñu kem kàttan. nan góorgóorlu bu baax. nan góorgóorlu bu baax. bu ñu gisee doxinu lislaam. suñu gisee doxinu lislaam. mbaag si ci jamono ji. mbaag si jamono ji. nga xool jamono ji. nga xool jamono ji. nga xool jamono ji bu baax. xool jamono ji bu baax. setantal bu baax. setantal bu baax. dafa mel ne li nu suñu borom dégg di digal. dafa mel ne li nu suñu borom digal. newunu ci. nekkunu ci. dëgg la nag. dëgg nag. suñu borom moom noppi na ci lépp. suñu borom moom noppi na ci lépp. bu nu seetee bu nu xoolee sëriñ bi. xoolee sëriñ bi. nii nu li nu li xam ci moom. li nu xam ci moom. weesuwul gëm boromam. weesuwul gëm boromam. di ko jaamu ci wàllu yëpp. di ko jaamu ci wàllu yëpp. fi ñu ko gisee ba mi mi ko noppee gis. ba ni ko noppee gis. ci loolu rek la nekk. ci loolu rek la nekkoon. bi nag kenn du ko seen. sëñ bi nag kenn du ko seen. ngi fi. waaye nag ndigal yeeg ak tere yi ñu ngi fi. yàlla bëgg ngi fi. yàlla bëggam ngi. li yàlla bëgg ngi fi. li yàlla bëgg ngi fi. li yàlla bañ a ngi fi. li bañ a ngi fi. kon ginnaaw sëriñ bi moom matale lépp. ginnaaw sëriñ bi moom matale na lépp. digle na lépp. digle na lépp. wane na lépp. wane na lépp. bind na lépp. bind na lépp. kon lu mu ñàkk ñàkk ñàkk solo. kon lu mu ñàkk ñàkk ñàkk solo. war nañoo góorgóorlu. war nañoo góorgóorlu. bu baax a baax a baax bu baax a baax a baax. ban ba ma ban ma mën a nekk ay jullit dëgg. ba mën a nekk ay jullit dëgg dëgg dëgg. di taalibe yu yu dëgg dëgg dëgg. di taalibe yu dëgg dëgg dëgg. ndax. ndax. nit mënta toog loxoy neen nit nit mënta toog loxoy neen il faut mu nekk ci dara il faut mu nekk ci dara kon te dara amul lu njëriñ te dara amul lu njëriñ lu fonk suñu diine lu dul fonk suñu diine rek du dara amul lu njëriñ dara amul lu njëriñ lu fonk suñu taalibe lu fonk suñu taalibe ak taalibe mooy def mooy mooy mooy defar lépp mooy matal lépp ak taalibe mooy defar lépp mooy matal lépp mooy rafetal lépp mooy rafetal lépp mooy sakkanal mooy sakkanal lépp. mooy sakkanal lépp. kon nan góorgóorlu bu baax. kon nan góorgóorlu bu baax a baax. nanu xantewoo doon kenn ku ne ci noonu. nanu xantewoo kenn ku ne ci noonu kenn ku ne ci noonu. nam doon ay jullit dëgg rek. nun nun doon ay jullit dëgg rek. nam kenn ku ne ci noonu. kenn ku ne ci noonu. na xantewoo. na xantewoo. doon doon jullit dëgg. doon jullit dëgg dëgg. doon taaliba dëgg. doon taaliba dëgg. foofu suñu dund gépp xëj na ci. suñu dund gépp xëj na ci. buñ ca nekkee. suñ ca nekkee. borom mëneesu ko neexutu jaamu. suñu borom neexutu jaamu. waaye suñu xel dana dal. waaye kon suñu xel dana dal. ci suñu bopp. ci suñu bopp. ak ak ak ak diggante. ak suñu diggante. ak lépp lu ñuy yëg ko gis. ak lépp loo xam ne yëg di ko gis. muy tey muy ëllëg. muy tey muy ëllëg. loolu mooy moom moom moo ci mën a dalal suñu xel. loolu moo ci mën a dalal suñu xel. mën a dund dund gun ah, amal njëriñ mooy moo tax mën a dund dund gun am gun amal njëriñ ci si ci àdduna si te yaakaar dund gën a gën a gën a gën a yiw te yaakaar dund gu gën a yiw ci àllaaxira ci àllaaxira nan góorgóorlu bu baax nan góorgóorlu bu baax ci li ci li nu fi indi jaamu yàlla rek moo tax moo nu jaamu yàlla rek moo tax bindu nu andi nu fi andi nu fi di nu jaamuloo kon nan góorgóorlu rek ci kon rek ci lim nu fi indee sax ci jaamu yàlla. sax ci jaamu yàlla. suñu kem kattan. suñu kem kattan. na mu gën a selle. na mu gën a selle. na mu gën a nañ ci gën a jafe suñu suñu yitte. nañ ci gën a jafe suñu yitte. buñ ci defee suñu yitte yëpp. suñ ci defee suñu yitte yëpp. du nu wàññi dara. du nu wàññi dara. ci kër kër yi adduna ji. ci kër kër yi adduna ji. ñu yittewoo suñu bopp yittewoo ko adduna. ñu yittewoo suñu bopp yittewoo ko adduna. buñ ko yittewoo suñu borom yittewoo ko diine. yittewoo suñu borom yittewoo ko diine. kon dana am naflaayu tey kon dana am naflaayu tey ak ëllëg. jaaxle it du am. jaaxle it du am. fitna du am. fitna du am. ku ku ku kuy nattable loolu. kuy kuy nattable loolu. jërul ngay xool mbooloo mi ni ñu doxee. jërul ngay xool mbooloo mi ni muy doxee. yow da xool sa bopp rek. yow da ngay xool sa bopp rek. kenn ku ne bu xoolee boppam. kenn ku ne bu xoolee boppam. na loola. na ca loola. mbooloom jullit day daal am. mbooloom jullit da daal di am. mbooloom taalibe daal di am. lépp yéwén. lépp yéwén. benn ja ja jaaxle du am. benn jaaxle du am. diine mooy dëgg. diine mooy dëgg. kon nan góorgóorlu bu baax. kon nan góorgóorlu bu baax. sëriñ bi wàccoo na nun. sëriñ bi wàccoo na ak nun. ni ko sunu borom bëggee. ni ko suñu borom bëggee. mu nekk ku ci mu nekk ku ci jaam yi. ci jaam yi. mu nekk ni mu ko bëggee mu war a nekk war noonu ci jaam yi. ni ko bëggee war nekk noonu ci jaam yi. sëñ bi wane na lépp. sëñ bi wane na lépp. dara desu dara desu kon nan góorgóorlu rek. kon nan góorgóorlu rek. watandikuy caaxaan. watandikuy caaxaan. caaxaan. caaxaan. amul solo amul te mu nekk ci lu dëgg. te mu nekk ci lu dëgg. caaxaan rek la caaxaan rek la. Eh, daal di wax ne bu eh, bu gëm suñu borom ame daal di wax ne bu gëm suñu borom amee. gëm àllaaxira am. gëm xaal am. koo mën a doon. koo mën a doon. il faut que nga soppiwu doxin. il faut nga soppiwu doxin. waaye dëgg gëm doon rek. waaye dëgg lay dëgg lay doon rek. kon nan góorgóorlu bu baax. kon nan góorgóorlu bu baax. Eh, maa ngi sant ñëpp. noo noo ngi sant ñëpp. di gërëm di gërëm ñëpp. Eh, topp ma kenn dara. nee na topput dara. waaye mm, mm, man na àq ñëpp ñëpp. nee na mi ngi baal àq ñëpp. di gën a mm, feeñal sama yéene ci mbooloo ci ci mbooloo mi. di gën a feeñal seen ci mbooloo ñëpp nañ bokk balonte yàq. ñëpp nañ bokk balonte yàq. lii kaddu yi mu wax moom buñ ca nekkee. mu ne kaddu yi mu wax buñ ca nekkee. kenn ci nun du topp du topp morom ja dara. kenn ci nun du topp morom ja dara. day ànd ak moom na mu war a ànd ak moom. nan ànd ak ànd ak moom day day ànd ak moom na mu war a ànd ak moom. nan ànd ak moom ni mu war a ànd ak moom. kenn ku ne ci nun kenn ku ne ci morom ja digg ma morom ja bu nekk bu ci lii bu nekkee ci lii day ànd ak moromam na mu war moom day ànd ak moroom dara dox ci diggante ba dara dox seen diggante lu aw yiw lu aw yiw ak dimbalante dimbalante dimbalante dimbalante wettilante wettilante soññante soññante loolu rek la ñu indi nag kon nag noonu maa nan balonte ak ñun ñëpp nun balonte ku kenn ku ne jublu ci sa bopp. bul jublu ci sa bopp. naan di wax ne nun nun nun waa kër Sëñ Tuubaa. nun waa kër Sëñ Tuubaa. dañuy joxe suñu bopp. dañuy joxe suñu bopp. dañuy joxe suñu bopp. dañuy joxe suñu bopp. dañuy joxe suñu. dañuy joxe suñu bopp. waaye joxe suñu bopp gi. waaye joxe suñu bopp gi. képp damaa di wax képp kuy joxe. képp kuy joxe. la ngay joxe. la ngay joxe. nay lu baax. nay lu baax. kon nag nanu nanu joxe suñu bopp gi. joxe suñu bopp gi. di jiital dafa jóg ci suñu bopp. jiital jóg ci bopp. jéem a defar suñu bopp suñu kem kattan. jéem a defar suñu bopp kem suñu kattan. day tax nu gën koo mën a joxe. day gën nu gën ko mën a joxe. day tax nu gën ko mën a joxe. kon nañu góorgóorlu bu baax a baax. kon nañu góorgóorlu bu baax a baax. nañu góorgóorlu ci suñu bopp. nañu góorgóorlu ci suñu bopp. jéem a defar suñu bopp. jéem a defar suñu jéem a jéem a defar suñu bopp. mooy tax mu gën a mën a joxe suñu bopp. mooy tax mu gën a mën a joxe suñu bopp. mu gën a mën a joxe suñu bopp. mu gën a mën a joxe suñu bopp. te fekk nu xam ne lu baax la lu baax la bëgg a joxe. te xam ne lu baax la nga bëgg a joxe. waaye joxe sa bopp. waaye joxe sa bopp. nekk ci sa bopp. nekk ci sa bopp. nekk ci àdduna. nekk ci àdduna. loo neex mel. loo neex mel. loo loo bëgg a ko. loo bëgg a defee ko. loo bëgg a mel mel mel na noonu. loo bëgg a mel mel na ni. loolu du du du andi du andi defaru. te kon nañu góorgóorlu rek. kon nañu góorgóorlu rek. suñu kem kattan. kem suñu kattan. lii lépp lii lépp. soññe rek la. soññe rek la. waaye suñu xel dal na bu baax. waaye suñu xel dal na bu baax a baax. suñu sëriñ bi. suñu sëriñ bi. lu war a def def na ko. lu mu war a def def na ko. te it eh, jekku na mbiram. te it jekku na xam ne. sàkk na ñoo xam ne. lam bëgg. lam bëgg. muy la yàlla bëgg. muy lu yàlla bëgg. ña nga ca. ña nga ca. teg ci seen tànk. teg seen tànk. sama mbokk yi sama mbokk jullit yi kon sama mbokk jullit yi sama mbokk taalibe yi sama mbokk taalibe yi ku bokkoo ci ñoo ku seet sa bopp ku set sa bopp te bokkoo ci ñooña te bokkoo ci ñooña da ngay da ngay ma bokk ci ñooña da ngay xemee ma bokk ci ñooña waa këram nga xam ne waa këram ñooña nga xam ne moo leen defar moo leen defar bañ mel na yàlla bëgg bañ mel na yàlla bëgg te seen seen jeexit a ngi fi te seen i jeexit mi ngi fi. am na ñu leen fi nekkal itam. am na ñu leen fi nekkal it. am na ñu fi nekk ñoo xam ne. am na ñu fi nekk ñoo xam ne. la sëñ bi bëgg rek ca lañ daan. lañ bëgg rek ca lañ nekk. mooy la yàlla bëgg. mooy la yàlla bëgg. ci wàll yëpp nag. ci wàll yëpp nag. kon nag sama maas gi nga xam ne. kon nag sunu maas gi nga xam ne. adduna xas xas nañu fëkk. adduna xas nañu fëkk. te mel na ne adduna adduna am na am na ci ñun doole lool. te it mel na ne adduna am na ci ñun doole lool. day day day day àgg foo xam ne. day àgg foo xam ne. dootoo tal yàlla. dootoo tal yàlla. sëriñ bi. dootoo tal sëriñ bi. dootoo tal alaxira. dootoo tal alaxira. da ngay nekk ci sa bopp rek. da ngay nekk ci bopp rek. na ci àdduna ji rek. na ci àdduna ji rek. jox àdduna jàpp ne li nga war a yittewoo yëpp mooy jàpp ne li nga war a yitte lépp yittewoo lépp mooy ak sa bopp ak sa bopp. fekk na gaay gaay gaayam yii mu fi bàyyi. fekk na gaay bii mu fi bàyyi. ku ci aw ci yoon wa ku ci yoon wa du ko yàqal dara yi addunaam du ko yàqal dara yi kon nag nan góorgóorlu xool ñooñu kon nag nan góorgóorlu ci xool ñooñee adduna ji niy wut adduna ji niy wut jëmale ko suñu bopp jëmale ko suñu bopp bu nu dóoru ci ci li ñu fi andi bu nu góorgóorloo ci li ñu fi andi jaamu yàlla jaamu gaamu gu jaamu yalla jaamu gu wér ca nañ ñu ko digalee nañ ñu ko teree ca nañ ñu ko digalee ak ni ñu ko teree nañ ñu ko bëggalee ak ni ñu ko bëggalee kenn ku ne ci ñun kenn ku ne ci ñun yàlla borom noppi cërim yàlla ci noppi na ci lépp suñu borom noppi na ci lay cërim lay cërim lu mu rëy rëy rëy lu mu rëy rëy rëy mu nekk dana ko fekk nekk dana ko fekk kon bu mu ko yàqal jaamu yàlla kon bu mu ko yàqal jaamu yàlla bu mu bu ko yàqal xalaat digg ma boromam bu mu ko yàqal xalaat digg xalaat digg ma boromam bu mu ko yàqal yittewoo boromam bu mu ko loolu eh, leneen lu mu war a yittewoo. leneen lu mu war a yittewoo. ci boppam. ci boppam ak ci àdduna. ci àdduna suñ gannaaw suñu borom noppi na ci. gannaaw suñu borom noppi na ci. fu mu nekk dana ko dana fekk. nekk dana ko fekk. kon ni mu ko waxee rek la. comme kon ni mu ko waxee rek la. ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. jaamu yàlla rek. jaamu yàlla rek. moo tax mu bindu nu. moo tax mu bindu nu. andi nu fi. andi nu fi di nu jaamuloo. di ko. kon. kon. nanu nanu nanu nanu yéene suñu bopp jàmm ñooñu yéene suñu bopp jàmm buñ ko defee rek suñu ko defee rek nekk ci lan war a nekk nekk ci lan war a nekk ak li adduna ji ñuy wut adduna ji ñuy moo ni daw da mooy daw fekki suñu dab dab nu mooy daw dab nu te duñu yàqal dara suñu diggante te duñu yàqal dara suñu diggante duñu yàqal dara suñu diggante alaxira duñu yàqal suñu diggante dara alaxira kon nag jërë ngeen jëf kon nag jërë ngeen jëf ñu sant ñëpp sant ñëpp di gugur yàq baal wàq ñëpp baal wàq ñëpp di ñaan ñëpp ñu balonte yàq ñaan ñëpp di góor góor lu ci kanam bu baax baax góor góor lu ci kanam bu baax suñu kem suñu kem jëf jëf ñu ñu ñu

téel bu baax ba mu baax rek téel ji di baax ba mu fés. ji di téel baax waaw. Allah ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. jàppale ko bu baax ca suuf ba allahu akbar 进去